jërëjëf monsieur le ministre donc ñu ngi remercier téléspectateur Dakar Média ci seen émission dëgg rek te yàlla tax face au ministre Farba Senghor ba beneen yoon jërëjëf.